gars yi xibaar bi xam naa du neex ñu bari nekk ay liggéeykat te it di daan seen doole bëgg a jóge fii ci Sénégal génn dem ci bitim réew lu manqué ay junni doomu aadama yoo xam ne fi mu toll pare nan pour ñu delloo si leen fii ci Ndakaaru officiel na fañ leen denc lépp gars yi topp leen nu ci xibaar yi Aladji kii TV information yu wër te yu wér te wóor li ko gën a soxal mooy information yoo xam ne soxal na ñi nga xam ni ñooy waa Sénégal dëgg nag ndax Sénégal dëgg-dëgg ci jafe-jafe la na kon xibaar yooyee lépp luñ ci am war nañ ko mën a indi ak tas ko partagé ko ak yéen man ngeen cee joxe seen xalaat ginnaaw bu ngeen defee seen i abonnement aimé li nga xam ni mooy suñu vidéo ndax loolee dana am solo bu baax a baax immigrant yi nga xam ni maanaam ñi jóge woon fii ci Sénégal toll ci 880 personnes maanaam lu toll ci juróom-ñetti eh, téeméeri doomu aadama ak juróom-ñetti fukk immigration yoo xam ne dañoo duggoon ci biir peex mi maanaam wut seeni gaal war a dem fële ca Espagne ak li ko wër waaye nag foofee daanaka ñi nga xam ne ñoo yor yor wàllu secours secours nag bu ñu ko déggee ci biir ndox mi mooy ñi nga xam ne dañuy yor lii di ay gaal di dugg ci biir ndox mi di contrôler yor seen i appareil xool lu gis ci ndox mi ak li ko wër mën leen a sëppi daal di leen di génne sauver leen ba pare delloo leen seen dëkk wala ñu wut ay pexe ci ñoom ñoom ñee nag ñoo daje ñi nga xam ne daanaka rek bi dajalee li ñu am tollu na ci 880 ni ma leen ko waxee euh, juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukki doomu aadama ñi ngi ci gox yi nag ñu denc leen nag pour accueil war leen a jël indi leen Sénégal Dakhla nga xam ne ma nga ca Maroc ak euh, Oued ak li nga xam ne mooy Edahab loole tamit di ñetti dëkk yoo xam ne yëpp ñi ngi fële ci Maroc ñu daal di leen ci jàpp nag fi mu nii li ñuy def mooy wutal leen ay fofal naaw leen fii ci Sénégal ñu siwaat mu nekk yaakaar ju tas mu nekk dëkk boo xam ne Sénégal ni ko nit ñi gisee te bàyyiwuñ ko xel noonu loola jar naa jàngataat ndax ñu bari ñu ngi commencé. génn dëkk bi ay junni junni doomu aadama ñi ngi jaar ci géej gi di dem ñi delsi nañ ñi delsi wun loole nag ba tey ma waxaat état bi nga xam ni mooy état Sénégal ñu dimbali nu góorgóorlu ngir yàlla fexe wut ay pexe yoo xam ne ndaw ñi dana nu mën a am lu nu jàpp ba du nu jaaxle bay mën a génn di wuti